tey dañ doon jiite euh, CDD bi nga xamante ni yàgg nañ ko def di préparer màggal yeeslu bu Daaru Salaam bi nga xamante ni dañ koy jàpp euh, si le 7 janvier 2023 Euh, woo nañu nag suñu service technique yëpp bi ñu leen woowee aussi dañoo déglu commité d'organisation bi ñu joxoñ seen expression de besoin ñu traité point par point ñu de commencé d'abord ci sécurité li ñu bëgg sécurité li ñu bëgg ci sapeur pompier bëgg ko ci santé bëgg ko ci secteur secteur bi ñu leen bi ñu ramassé yëpp sécurité li ñu bëgg mooy d'abord ñu sécuriser les pèlerins ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm te loolu ki fi teewal commissaire de police bu Mbacké Euh, joxe nag garantie ni loolu dana am lañ fa lañ daan def suñ ko euh, yokkul duñ ko wàññi euh, su fekkente ni sapeur pompier aussi joxoon nañu assurance ni dinañ indi ambulance dinañ indi camion de surveillance la santé aussi bien que teewu fi waaye am nañu yàqin ni la mu daan def dana ko def ndaxte danañu augmenter avec en collaboration avec la mairie dinañu dolli non seulement médicament yi mais aussi dinañu dolli le personnel euh, pour euh, assist pour assurer la santé des pèlerins mais aussi danañ mettre sur pied trois postes de santé avancés comme ni ñu ko commité bi demandé donc la mairie aussi Euh, dinañ ko wax ni danañu indi ay bâche ay matelas comme ni ñu ko daan defee année prochaine aussi ñu préparer euh, des camions de vidange pour vider les fosses euh, des autorités religieuses incha allah donc pour Eaux et Forêts aussi comme ni mu ko daan defee dana indi dana dana faciliter le transport maanaam mattam yi dugg pour que dañ koy soxla si si cin yi danañ ko danañ ko indi donc pour service d'hygiène aussi désinfection des des des maisons pare pare na ko pour def ko cinq 5 incha allah hydraulique aussi dinañ def tout pour que ndox du manqué ci ci taawu màggal gi. Senelec aussi wax nañ ni dana def assurer hors délestage maanaam courant du coupé suñ ne suba la bis bi ak euh, suñu màggalee ba pare loolu dina si taxaw élevage aussi comme ni ñu ko daan defee dana def inspection des des des des animaux maanaam. animaux les animaux bala ñu leen di rey dinañ leen xool suñu leen reyee ba pare bala ñuy eh, jëfandikoo ndawal ki tamit dinañ ko xool donc pour vous dire rek en résumé euh, loolu moo ñu fi dajale woon tey te yaakaar nañ ni lépp lu nga xamante ni euh, kilifa yi dinañ daan nañ ko def euh, suñ ko yo yokkul duñ ko wàññi ñu ñaan yàlla rek ñu àgg si suñu jàmm ak pare si si jàmm incha allah jërëjëf. El Hadj Cheikh Sylla mooy wax ci turu daayira yi nga xam ne tey ñoo lëkkale kër sëñ Modou Rokhaya yore activité yi nga xam ne tey organisation màggal gi nga xam ne tey mooy màggalu yeeslu màggalu yeeslu gi nag moo ko waxee rek delloosi ko tuuti ci taarix xam nga sëñ Modou Rokhaya moo tàmbali woon 1983 dajalewaat njabootu Daaru Salaam yëpp wax leen ne nañu yeesalaat suñu pas-pas ci Serigne Touba dajale ay addiya yóbbu ko at moomu 3 millions lañu yóbbu woon waaye boo xoolee booba ak léegi euh, ci jamono Serigne Modou Rokhaya ba ci 1996 yàlla dogal mu mu bàyyi koo fi. sëriñ Saliou nag joxe ndigal ci ne nañuy boole dajale addi yi ak ñaanal ci sëñ Modou Rokhaya muy kon bis boo xam ne murid yi yëpp ñoo ko bokk taalibe yi yëpp fu waaye mën a nekk rek am nga ci ab cër te def nañ ne jàmbaar jooju di sëriñ Modou Rokhaya euh, yeesal euh, suñu euh, suñu pàttaliku ci moom ñaanal ko yàlla warteef la ci képp koo xam ne rek am nga yëg-yëg ci yoonu sëriñ Touba bi di wax rek ne boo ko doon delloo toujours ci histoire 3 millions en 1983 daaw ñu joxe trois cent dix millions mel na ne loolu jéego yi am na solo lool lool lool lool tey ci ren ji aussi dañu fas yéene def lu ëpp loolu te ndax loolu mooy li nga xam ne tey mooy bëgg-bëggu kilifa yi nga xam ne tey ñoo nekk ci boppu Daaru Salaam mu mel ni bu xëyee dajale addiye yi ba ba ba noppi itam dañuy daal nag jublu ci fàttaliku ak ñaana sëñ Modou Rokhaya jàmbar jooju nga xam ne tey dama wax ne bi mu bi mu jógee ci kër sëñ Modou Moustapha euh, premier xalifa sëriñ Touba del si Daaru Salaam liggéeyam euh, ak dundam gépp da ko joxaat Serigne Touba ci di ko liggéeyal fu mu mën a toll rek mu ngi doon liggéey mu sawàcc ci benn yoon wax dëgg yàlla xalifaam bi nga xam ne tey moo ko fi wutu Serigne Cheikh Anta Mbacké itam ci yoon woowu a nekk barki démb rek gis nañ li nga xam ne tey jëba jëba euh, jëfaat na ko ci kër Serigne Touba gi muy manoore wu mag moo xam ne tey Daaru Salaam yëpp ñoo ko ñoo ko am sëriñ bi wax na ne kon buñ ci àggee nañu fas yéenee xëy dajale at yi ba mu gën a bëree nam daan lañ lañ lañ amoon at mu jot amoon ko daaw danañ am lu ko ëpp ren ji incha allah waaye itam buñ noppee itam ñaanal jàmbaar jooju fàttali ko ko jàng alxuraan jàng de sëriñ Touba yi def suñu salaat lépp def ko muy addee sëriñ Modou Rokhaya ñaane yàlla mu yéege ko ca naata wax ne nag euh, loolu tam biñ ci ñëwee ñëw nañ ko si si préfet ak euh, staff bi nga xam ne tey ñoo fi nekkal muy waa CDD bi ñu indil nañ leen itam li nga xam ne tey mooy mooy li nga xam ne tey jàpp nañ ne buñ ko amee màggal gi dana dana tawfeex dana dana àgg ci taarix ah loola itam préfet nangul nañu ko déglu na ko mboolem CDD bi ñu fi nekk tam jël nañ engagement ci buñ ci àggee ku ci nekk la la ci war bu ñu xel da nga ko taxawee ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm kon di séntu ñëpp itam le 7 janvier bu ko yàlla dogalee ci fii ci Darou Salaam 2023 euh, ñu dajewaat dajalewaat at yi waaye ñaanalaat jàmbaar jooju nga xam ne tey euh, histoire du ko fàtte yoonu mu murit fu ñu toll itam di ko bàyyi xel ndax wax dëgg yàlla euh, jëmmam ak taxawaayam.